23 loolu loo ci defoon fay. waaw. la, Nola. No Nola. Varias. No. No. No, no no No no No, la. no, normal No. Hey, No 나. No. No. Have a good list. No, no. She, she's the one. No. No. te tàllal fii ci kaw dégg nga. non la.